إلا الله لا إله إلا الله لا laa ilaaha illallaah laa ilaaha assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom ñu julli ci yonent yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam maa ngi sant Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba di sant maam Cheikh Ibra Fall ci koy gërëm di wax ne nag cosaanu ndogu yi mooy li gën a wér daal maam Cheikh Ibra ko daa def sëriñ Touba la ko doon defal ndax nag eh, sëriñ bee ko wax ne ko dee ko defal mu koy def mbaa Cheikh xam li mu war a defal Serigne Touba mu koy def lu ca am rek lu yàlla gërëm la yi hmm. nga xam ne nag kër gi nga ñëw te nga xam ne moom as kër la ci kër Cheikh lii nuy def suñuy kilifa lañ koy def sëñ Abdou Fall mi nga xam ne moo fi nekk nekkal fi sëñ Mortala mooy xalifa sëñ Mortala mën di kër Cheikh Ibra yi kër goo dem rek ka nekk ci bopp kër gi ma ngay defal maam Cheikh Abdou Fall nii sëriñ bi nag am ñaari cin yoo xam ne dan dan koo séddale séddama ko ma ko ciy sant lool te ko ciy gërëm ndax ku tax nga mën a liggéeyal Serigne Touba mbaa nga mën a liggéeyal Cheikh Ibrahima dimbale nañ ñaari cin yooyu nu Serigne bi jox nag nga xam ne moom ci mbaaxam la ko defee bis bu set ñun yàlla booleel ci bokki taalib yi no ànd ak ñoom dem ko këram di ko toog suñu bàyyee nag ba bis yi ñëw muy bisi kumte yi euh, nu feeñal suñu yéene ci nam ma liggéeyal seexe bi ak bëgg koo liggéeyal ndax daje ngërëmam mooy tax ñu def lii nga xam ne aw yokku maanaam ndab yi lépp lenn ci ndab benn liggéey la kenn dañ koy fi wér loo yàgg fi lool te wér mboolem ak ay rakam mm, di ñaanal mu Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Fall mbenn moom itam yàgg fi lool te wér ak mboolem njabootu maam Cheikh bi di ko ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy Xaadimu Rasuul mu yàgg fi mu yàgg seen ginnaaw mu yàgg koo jëf yàgg leen koo jébbal te te leen fay fekk loolu Serigne Touba ak maam mboolem njabootu Serigne Touba lépp nag xerte xerte taalibe yi ak seenu nangu ndax bii jàll defoon nañ ab lim ñàkkul ci bokk taalibe yi danañ leen ko tudd lim boo xam ne tubaarkàll matoon na téeméer bii romb nañ kon nag loolu lépp day wane na rek nit ñi woowuñu leen ci Serigne Touba mbaa ñu woo leen ci maam Cheikh bi danoo am ak moom nekk ci Serigne bi nekk Serigne Touba ak Cheikh <clears throat> bi ànd liggéey Serigne bi ñi ngi ciy woo di leen soññ ñoo la ci gën a xew ndax bala nga leen a laaj xam nañ den war di ko ci def kon nag euh, tubarkàlla alhamdulilah. Mm-hmm. waaw bis boobu nag moom mooy bis boo xam ne yoon dafa am yoo xam ne suñuy wartee la am loo xam ne noo ko warlul suñu bopp yéen warlul suñu bopp nag loolu da caa bokk moom des ko def rek nga def benn mat parce que yéene koo boole waale ko ci sunu jaamu di ci liggéeyal maam Cheikh Ibra Fall ci cant ndax euh, cant dara da koo gën a ci euh, yàlla sunu borom cant ko gi sunu borom santaane na te ne euh, ku ko sant mu dolli la te bëgguñu lu ndolleen moo tax ñun itam ki nga xam ne mooy sunu bunt di bunt yoonu mu di maam Cheikh Ibra Fall da koy woote li bis fa Ndakaaru di ko dëppale ak benn fan ci weeru mee nga xam ne mooy bisu liggéeykat yi ci la mooy seen bisu feet Cheikh Ibra nag moom li mu doon liggéey yàlla rek a taxoon muy xet na liggéey boo xam ne yàlla nga cee yaakaaru payam kooka nag moom kon du fa benn doléance di ko wax moom cant rek lay def tax ñu fa bis def ko bisu sant Serigne Touba jaamam bii di ci woo nag bi Serigne Touba yëpp ak bokki jullit yëpp ak euh, ñi dëkk Sénégal yëpp ñu bokk ci yoon wi diine ji sax ñoo leen ci woon ñaan yàlla sunu képp ku fa ñëw rek. yàlla nga daje ngërëmul yàlla suñu borom ak eh, tawfeexam di jaay yàlla nga fa daje ngërëmul sëñ Tuuba ak maam jëm ci taalibe yi mooy góor góorgóorlu ci ak taalibe rek ak ak njub taalibe ak njub ndax yàlla suñu boroom borom fekkoon ne am na fu ñu ko mën a eh, séenu fekk ko yàlla ñëwul fenn te mu ngi fépp waaye njub daal ku fa ne moom boo fa nee jëng da nga fa fekk yàlla suñu borom mbaa boo fa nee jëng yàlla fekk la kon nan góorlu ci ak jub di jëfe ay ndigal te bañ a nekk ci lu muy tere te it yëngatu àdduna bañ ñoo bañ ñoo këf kenn ku nekk xam boppam xam la ko war bu liggéey jotee na nit ñi dem liggéeyi mu jaamu yàlla jotee na nit ñi dem jaamu yàlla suñu borom. nga leneen li ci des lu mën a doon loo xam ne mooy xew-xewi àdduna yi ñuy dégg lu mën a doon jër te nekk fenn di xëccoo ko xeexoo bu nu àggee ci waxtu ku nekk la la war nga def waaye nag nag am na ci ak yar ak i teggin ak taalibe ten xooli yàlla gërëm nu mu ngi jëm foofu te bañ a topp melokaanu àdduna yi ak xew-xew yi loolu daal waaye soññ bokk taalibe yi di ci soññ sama bopp góorgóorlu ci diglu digal te bàyyi ay tere xool fi sëriñ si jëm nu ànd faa ak ñoom ndax taalib yi leen a taxaleeg sëriñ sëriñ si leen a taxaleeg taalib ak mot rekk fi ne pour taalib bi nañ ci góorgóorlu def ko muy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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha